kii li ko dal buñ ci jógul du baax. waaw asalaamaaleykum sëñ bi ñu ngi siyaar. mbaa yéen a ngi ci jaamu man daal sëñ bi dama jommi ndax dama nekkoon jam ñaajo doon fa liggéey si affaire maçonnerie léegi bi may liggéey foofu am benn waay bu ma xamanteeloon foofu ci benn chantier waa ji ni ma sëñ bi yow ni nga mënee liggéey ak ni nga doonee xale nga bëgg a topp ci ginnaaw nit di liggéey loolu mënta nekk xale bu ndaw nga te danga nga mën a liggéey léegi dafa am sama benn gain bu ma lay booleel léegi su ma la boolee ak copain boobu moom dina la teg ci yoon pour ñu xool chantier yu mag yi nan nañ la ciy joxee ma ne ko ah mun waaw ma ne ko d'accord léegi mu woo benn copain am sama kanam daal di may booleeg moom léegi copain bi ne ko jox ma numéro mu jox ko sama numéro après le lendemain waa ji woo ma bi ma waa woowee ni ma sëñ bi man ko waaw mun na man de sama copain bi man la la boole loon démb ma ne ko ah bon man waaw man ko d'accord mu ne ma léegi dama bëgg nga ñëw sama biro léegi boo ñëwee maa ngi ñu waxtaan après si laa dem ci bureau waa ji bi ma demee waa ji jox ma plan fondation jox ma plan élévation daal may jox plan finition mu ne ma actuellement ma ne ko waaw mu ne ma job bi xam nga nu muy demee ma ne ko nan lay demee munu ma léegi lii nii ñu ngi koy joxe vingt trois million léegi pour que lii génn tamit aussi man ko waa mu ne ma il faut nga am loo dugal da ngay dugal benn valeur cinq cent mille léegi valeur cinq cent mille boobu ngay dugal soo ko dugalee après moom mooy tax lële génn te moment ba man yoroon naa cinq cent mille mais cinq cent mille bi ma yoroon moomu ma ko alalu jàmbur la woon ñu dénkoon ma ko am luñ ma ci doon liggéeyloo léegi si biir loolu fekk ñu ma joxoon benn cinq cent mille ci biir loolu am luñ ma ci doon liggéeyloo léegi cinq cent mille boobu. ma laaj waa ji man ko affaire bi mbaa du yàgg mu ne ma déedéet affaire yi de du yàgg ma ne ko ñaata temps lay durer mu ne ma pendant quinze jours léegi si biir loolu pendant quinze jours yooyu mu ma wax ma jël cinq cent mille boobu daal di koy jox waaj léegi bi ma ko joxee waa ji ñuy déggante man ak moom di déggante ba onzième jours mënatuma dégg waa ji ma dem fa ma fa ma xamee woon waa ji ma expliqué leen problème bi ñu ne ma kooku yow la ko mujjee def parce que fii def na ko fi plus de quatre personnes xam nga def na ko fi quatre personnes léegi nag man affaire bi jaaxal ma trop ndax fi mu toll nii man am naa problème bu sérieux ndax problème bi mooy lan mooy ka ma ko doon ka ma doon liggéeyloo actuellement maak moom fi mu toll nii ci yoon nañ toll parce que à chaque fois daf may menacer da ngay dem da ngay dem dama lay yóbbu police dama la yóbbu police ah léegi nii imaginer affaire bi nii nu mu demee nii dem naa jëm ñaajo bi ma demee daal di porter foofu plainte après waa ji numéro am jël nañ ko woon nañ ko mais numéro bi soneetul sonewul numéro bi actuellement mënatul a dem fenn waaw ñun ñu ngi koy woo duñ ko jot man depuis boobu ba léegi pendant un mois et quelque chaque jour maa ngi tenté ci numéro bi. chaque jour mi ngi tenté ci numéro bi ma jigéen. Mm-hmm. lu metti la ñàkk na fa as dooleem lu kiiwut waaye ñàkk na fa xaalisam beneen baat mooy moo waroon a dem ci yoon waaye daf mel ni moom la ñuy menacé ci wàllu yoon. waaw moo ko jural euh, lii lii mu am nii tey. Mhm. son yu bu mhm. parce que yàgg nañ fi indi genre kaay yu mel nii. Mhm. mais souvent. si lan nga ko doon gis ci appel téléphonique yi. war nga am nangam il faut nga dugal nangam. genre bii la rek peut-être daf ko jaaral la feneen. mais souvent lu lay indil xaalis son ah man de jàpp naa ne du da cee war dugal xaalis pour xaalis mën a ñëw. souvent mm-hmm. nag dinay faral di am par exemple. mais commerce faaw nga dugal dara dara. foo nga waa déggoo lu ma la wax ma ne souvent am na yenn yoo xam ne bu ñu la ko laajee rek. yow sa mm-hmm. xel war naa ñaaw wala soit sooy sooy joxe xaalis bi. Mm-hmm. il faut nga am témoin wala ngay bind ay décharge loolay faral di wax police mu lay wax. ana say preuve. ma soo ko joxee noonu rek te ah. moom rek moom moo maanaam xaalis bi ñuy joxe daa war a am trace waaw kay comprendre nga li saa doon wax keroog ba ma àgg sama yaay di ma wax saa moo neex nan la ah. ñuy jëlee premier cadeau di ko envoyé def si ay transfert ah man gis naa sama xarit bu ko def parfois dëgg lay dëgg ci wax ji saa njóog jooju sama benn xarit <laughs> dañuy waa ji man dama leen di envoyé affaire bi dama day am trace waaw mi ngi noonu ah. il faut muy am traçabilité parce que yii hmm. nii souvent lii rek lay jur après moo ngi nii ki ko doon liggéey mi ngi koy laaj xaalis te d'accord vraiment njóogu waaw xam nga de parensaay yu mel nii moom. Mhm. Euh, dafa am ñoo xam ni moom wax dëgg fa yàlla dañuy toog xalaat. Mhm. gis la. Mhm. xalaat li ñu mën a am ci yow. maanaam duñ ñëw dóor la ku duñ la dóor jaasi. mais cim xel la ñuy teg. d'accord pour am ci yow dara. kii nag dañ ko dugal ci guuta googu rek. donc euh, mais le fait mu partage histoire bi baax na. dana permettre aussi tamit. waa ji bëggul partage kese de ay ah. solution la ci bëgg. waaw <laughs> partage wut kese de. nee na ku ko dimbali parce que mënatu la jot ah, waa ji te li koy mën a. waaw lii lépp solution solution mën na cee judd. lu ne mën na cee judd mais li am solo daal. tey dëgg mooy partager lu mel nii peut-être am na ci moment bii koo xam ne fii la toll. waroon a ñuqi léegi dina ne tekk am na koo xam dina ne oh laa rajo bi yàqal na ma. am na koo xam dina ne oh là rajo bi jàppale na ma. donc loolu moom mooy àdduna mais li li am solo rek mooy nit ñi nañuy bañ a jiital seen bëgg-bëgg bu mu ëpp paren saa nit ki day ñëw fexe ba bëgg loo la dara ba gis ni àndatoo ceeg sago mhm. léegi nag mu soog laa mën a def lim lay def mais des fois fi ñu lay jaare alaaji doo comprendre fi ñu mais fi ñu lay jaar noonu yëpp dafa am lu ñu lay bëggloo rek dañuy xam li nga bëgg rek parce que mhm. lépp gis nga xaalis bi waa ji gisut li muy dugal mais li muy ji am nga gis mhm. loolu lañ lay gis loo mm-hmm. léegi bu ko defee léegi léegi li ngay dugal dootoo ko jàppee dara par rapport ak li nga war a am mm-hmm. fekk nag yow li ngay dugal mm-hmm. fexeel ba booy dugal rek dugal ca loo moom waaye bul jël yëfi jàmbur di dugal léegi-léegi nag loolu mooy problème bi d'accord na ngay jékki-jékki gis daal di tey daal di natt bu ma jigéen bi naa ko ci dugal dee na boobu ci dugalee problème am